certifié umi janka yalana ngur kanjo fa pambe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 korite ak korite ba ca suba sa yéen a aye ku nekk xam na ne Leewtoo production événement bu mu tëgg mu neex kan mooy parrain lamb ji monsieur Sidiya Diouf maire de la commune de Loul Sessène Sidiya Diouf di nit ka nga xam ne développement Loul Sessène rek a ko ñor Sidiya Diouf di ci invité ay doomu ndeyam ku ci mel ni monsieur El Hadj Ndour maire la commune de Djilas monsieur Déthié Diouf maire de la commune de Tataguine ñan ñooy invité d'honneur yi monsieur Karim Sène maire de la commune de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 mbokk yi lamb jàngi noonu bisu korité ak bu ñu korité ba ca ëllëg sa day faatu Adama Jali lan ngay wax waa Loul Sessène man day faatu Adama Jali maa ngi leen di jox rendez-vous ci dëkk ba ñuy wax Loul Sessène jouri korité bi bu ñu lekkee ganaar yi ba pare rek fa lañ koy reesale ji kontaan naa ci yéen de man day faatu Adama Jali maa leen di jox rendez-vous foofu salaamaaleykum mbokk internet Leewtoo TV ginnaaw ba ma leen nuyoo di am contentement jano ak yéen chaque jour nee naa leen bi mooy leen li gën a fas ci bopp xibaar yi ci noonu nag damay nuyu borom kër gi di Pape Thialis Faye di ko nuyu te di ko ñaanal jàmm ju bari en plus damay nuyu ñu ma feggool Mbaye Babacar ak Salwane daal ñëw jukkil leen li gën a fas Mbaye nuyu naa la. jërëjëf ajaratu Ndeye Mbacke Diop maa ngi lay fay du nuyu suñu xarit yi nga xamante ne bii ñu ngi ñuy topp ci Leewtoo TV. bis bu yàlla sàkk ci revue de presse bi nga xamante ne bii lépp la nga xamante ne bii xibaaru làmb la moom rek lan lañ ciy li bu neexee yàlla incha allah. Assane a nuyu naa la. ne Mbacke fay naa la di nuyu Mbaye Babacar di nuyu internetu Leewtoo TV amaan mbégte jàkkaarloog yéen pour indil leen di gën a fës ci yenn kaayu làmb ci. vendredi 7 mai 2021 journal suñu làmb boo xëyee ci xëtam bu njëkk Balla Gaye numéro 2 ginnaaw ba mu suñu làmb nag muy xëy di wax avantage yi mu wante tamit Ndeye Mbacke suñu làmb ñëw na ci gàllankoor yi nga xamante ne bii mën naa. arrivé kii di euh, Balla gay 2 ci ñetti avance yooyu nga xamante ne bii jël na ko mu war cee bëre ki nga xam ne moom mooy Boy Niang war ci bëre ak Gris Bordeaux wante tamit war ci bëre ak ki nga xamante ne bii moom mooy Bombardier di ñetti mbër ya nga xamante ne bii ku ci nekk am na taxawaay ci làmb ji Assane suñu làmb ñëw na ci euh, yaatal ci bu baax a baax borom xam-xam yi ñëw ñoom tamit andi nañ ci seen seen xalaat. dëgg la Mbaye Babacar euh, jàngat bu yaatu le journal suñu làmb def ci Balla Gaye mii nga xam ne dafa jël ñetti contrat nee nag jàngat bi ñu ci mën a gis mooy Balla Gaye am na ci ay avantage avantage waaye am na ci ay risques également yum yoo xam ne nii mën na ko ci fekk avantage yi mën nañ ci wax ne mën na ci am xaalis bu bëri ndax ñetti contrat boo ko amee di am ci xaalis waaye également bu dee am na ci ay victoire dina ko permettre mu gën a jege roi des arènes bi nga xam ne nii mos na ko nekk euh, jox na ci également kaddu kii di Max Mbargane mi nga xam ne nii ab manager la ci Lansar Max Mbargane li xam le mooy que ne Balla Gaye am na mën na ci jël benn risque risque bu mu ci jël mooy que ne bu dee def ci blessé euh, combat yi nekk ci kanam mën na ko gàllankoor jox na ci également kii di kaddu kii di Abdou Bakhoum ñu xam ko mu nekk manageru Ama Baldé Gueye moom li mu xam ne nee na risque yi bëriwul torop ndax euh, Balla Gaye euh, mbër la moo xam ne nii professionnel la donc risque yi bëriwul te euh, combat yooyu dina ko permettre mu am plus de compétition par rapport ak ay adversaire am jox na ci également kii di Zallo Zallo nekkoon fi mbër boo xam ne nii ñëpp ràññee nañ ko oh. Zallo moom li mu xam ne ne li mu xam le mooy que ne combat dina permettre Balla Gaye mu préparation bu baax ndax bu jàkkaarloo ak Bombardier pare ci du ko du du soxla préparation bu bëri pour mën a jàkkaarloo ak Boy Niang woon également ak euh, Gris Bordeaux loolu daal la ñuy xamle ci combat bu euh, bi nga xam ne ni Balla Gaye jël na ko par rapport ak euh, Gaston Mbengue. Mmh. ginnaaw ba mu jëlee ñetti mbër yu diis daal di jël ñetti avance yu buul kooku di Balla Gaye numéro 2 dem fee France. daal li nga xam ne mooy kombaam laata ñuy korite mbay Babacar. fële ca INSEPT la war a dem incha allah bu ci yàlla àndee ndey mbàkke noonu nga ko waxee noonu la bu demee nag incha allah war na faa fekk juróomi tàggatkat yi nga xamante ne bii maanaam juróomi technicien yi nga xamante ne bii Assane ñoo ko war a jàppale ci li nga xamante ne bii moom mooy yaramam li mu laaj yépp ñu mën ko koo defal. dëgg la Mbaye Babacar INSEPS moom mooy institut national du sport de l'expertise et de la performance nekk ci Paris foofu nag dañ fay tàggat ay tàggatkatu yaram ay boxeur lutteur euh, euh, xeetu tàggat yaram yépp lañ fay euh, former Balla Gaye mos na fa dem mu war fa delluwaat nag avant Korité maanaam d'ici une semaine maximum war na fa dem comme ni nga ko waxee soo defee foofu dina am cinq encadreurs yoo xam ne nii ñoom ñoo koy topp uniquement pour mu mën a préparation pour mu mën a préparer bu baax trois combats yi nga xam ne nii jël na ko Euh, war ci daje ak Bombardier Boy Niang 2 ak Gris Bordeaux. ginnaaw ya combat yooyu noonu yëpp taxawee la amateur yi bëgg te di ko mbëbët mooy combat bi dina di xamante ne mooy Reug Reug di ay combat yi nga xamante ne bii combat yu neex la wante Diène Kaïré ak Yékini Junior tamit amateurs yi ñu ngi koy laaj nekk ay combat yi nga xamante ne bii combat yee bu taxawee combat bii taxawagul Diène Kaïré Yékini Junior bëgg nañ ko. combat plébiscité moom mooy combat yoo xam ne ni amateurs yi moom lañ gën naa suñu làmb nag ñu gis ne ne bombardier Reug Reug daal instant yi moom la euh, amateurs yi gën a soxla euh, promoteurs yi tëgg ko ndax loolu soog euh, des gladiateurs la gis naa Reug Reug ñu toll ci dayo ak bombardier également donc ñoom ñaar boole mboole combat soog la wax na également comme ni nga waxee combat bi nga xam ne nii war naa man ndox ci diggante Diène Kaïré ak Yékini Junior Yékini Junior ça fait des années wala des saisons amul combat jën Kaïré jógee ci victoire ba mu na ñu ne ñaari combat combat yoo xam ne uh-huh. nag mbay ñi nga coach nga xam te ne mooy le genre du Baol la nga xam mooy tant que combat bi Pape Thialis Faye régularisé ko féete CNG am diggante Tapha Tine ak Boy Niang numéro 2 Mbaye Babacar. mbay ñi nga coach Tapha moo yëkkati yooyu la kàddu wante yemul foofu. nee na Tapha war na mën a bëre ak ki nga xamante ne bii moom mooy Lac de gannaaw ba ko daanee war na koo mën a may revanche ñoom ñaar ñu jàkkaarloo bëriwaat. dëgg la Tapha Tine moom nag bi ñu ko laajee ci combat bi war a dox ci diggante Tapha Tine ak euh, Boy kañ la moom li mu répondre moo ne xamagul kañ euh, la yaakaar naa combat boobu fi am fii ak Pape Thialis lay demul CNG régulariser combat boobu wax na également ne ñoom ñu ci fu total ndax ba léegi xamul fu ñuy taxawee comme ni nga ko waxee également wax na ci combat guerre ak ñeneen euh, lak kon maintenant nag jot na pour mu may kii di problème bi revanche wax na également ci euh, ñaari contrat yi nee na ñoom pare bu dee am na promoteur bu leen euh, proposé beneen contrat ñu ko xaar daal seen yaram dafa tàng instant bi ay double avance lañ def seen bopp naa la ko ah temps du leen xaar temps bi day dem yoram. mu ngi noonu nag ca journal record lañ jëm lam ca xam ne nag mooy pour le retour du showman kii di Zos suñu papa Gaston Meng kam koy proposé nag mooy Diène Kaïré Mbaye Babacar. staffu Diène Kaïré danoo lànk ba tëdd ca naaj wa nee nañ tey tey du ñu bëree ak Zos tey duñu ñu ak Zos suba fa ñu teg seen bët romb na ki nga xamante ne bii moom mooy Zos Assane. Euh, euh, jox ko euh, kii di Diène Kaïré waaye nag ba mu ko defee waa journal suñu lamb dañoo woo Diène Boy Kaïré mi nga xam ne nii moom papaye jënkere li mu wax moom ne jënkere xoolul Zos Zos nekkul ci plan am. Mhm. nekkul ci euh, arène bi ba pare tegal ay defet te jënkere moom fi mu teg bëtam moom mooy kuréelu laa def adversaire yoo xam ne nii adversaire bi gis xam ne nii ñu ngi kon daal jéen soxlawul Zos te euh, incha allah loolu bokkul ci plan ngay waaw le Don King de l'arène. Madou li ñu naan bëtu tan jéggi na. meddum sànq lañ. mu ngi noonu kii di Zarko nag incha allah suba di samedi dina jàkkaarloo taskatu xibaar yi Mbaye Babacar. loolu incha allah 11h lay am suba ci samedi bi Assane bu ci yàlla àndee Zarko woo taskatu xabaar yépp war a waxtaan ak ñoom di waajal kombaam ak ki nga xam ne moom mooy Baye Mandione. dëgg la Babacar ginnaaw bi mu demee voyage Espagne toog fa ñetti at euh, Zarco euh, ñibbi si na semaine bi passé suba nag la bëgg a def benn conférence de presse euh, foofu ci grand HLM Grand Yoff ginnaaw collège Hyacinthe Thiandoum foofu la koy defee à partir de 11h bi mu fa nar a waxtaanee nag di mooy dina wax ci retouram bi dina wax ci combat bi nga xam ne ni moo war a def diggante booy Baye Madior moo gën tëgg ko te war ko amal le 22 août dina wax également ci projet yi mu namm ginnaaw bi mu ñëwee loolu lépp suba incha allah ku fa dem. di nga jàkkaarloog euh, kon daal xam naa préparé na taskatu xabaar yi sëriñ bu duun bu neexee yàlla.

kenn waroon laa laaj forox toll nga war a def mu ngi doon nag ginnaaw ba ñuy njuj njaaj ñoom moo ki nga xam te ne nii mooy Jax kan moo ci tëgg fee ca Fatick mm-hmm. kii di Jamaïcain na mu ngi jox rendez samedi insha allah mbay war a dem ca Fatick insha allah bu ci yàlla àndee samedi moom Jamaïcain boroom jam production lépp jëm ci waajal journée boobu nga xam ne mi ngi ko war a am ca Fatick le 16 mai la suba la nee na day préparé galaam bi nga xam ne war na ko tamit le 16 mai foofu ci Fatick war fa miser 3 millions ba pare war ko pare ne Matar Ba waaye seulement dafa am lu ci ñuul ndax lii jàpp loolu la jàpp si jàpp même date même lieu même mise mu ngi noonu nag foofu dina neex ak li ci kanam raw li gët kan moom bay tëgg incha allah dinañ ko xamee du yàgg dara. loolu moo nekkoon di gën a fas jërëjëf Ndeye Mbacke li may tàggatoowee xanaa di jaajëfal bu baax a baax waa xel Xelcom Vision waa kër Serigne Saliou Mbacke nekk fële ca sa Ndoumbe Diop di jaay lépp la nga xamante ne bii jëm na ci ay wàllu verre photogré wala verre ordonnance lépp loo soxla ci wàllu verre rek mën nga leen a seeti ñoom waa xel koom Vision ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax a baax wante tamit di souhaiter joyeux anniversaire la sœur Mbène Diouf nekk fële ca Wasaare làmb borom le 7 mai. rakk sama ñu ngi lay souhaiter longue vie santé prospérité la ñaanal fan wu gudd wu ànd ak wér juufa ñoo ko bàyyi loo dund doyul. asalaamaaleykum. dem na xel di remercier di remercier Mbaye Babacar sama cameraman bi. gis naa la jug nga toog ko soo nangu lool mais noonu la moo ko laaj faama bëgg naa ci yow loolu bamb sama papa maa ngi leen nuyu di la jaajëfal bu baax Assane War ak Mbaye mi ñoo fegguloon nag damay kontaan ñu lu ma remercier ndax ñii samay mag lañu mm-hmm. buñ toogee di wax day mel ni ay morom mais bu ñu génnee samay kilifa lañu Kébé sama infographe bi naa ci yow moo maa ne sama chauffeur bi moom lu mu daw rek nee naa bi kontaan ci moom damay dem ba fi nga xam ne administration daal di nuyu matu plaignante bi bàjjan kontaan ci moom loola ah, ah Aïda Diouf bëgg naa ci yow dinañ jox dig daje ëllëg ci Leewtoo TV incha allah Leewtoo TV umi janka yala na ngurga njofa pambe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 bokk yi lamb jàngi noonu bisu korité ak bu ñu korité ba ca ëllëg sa day faatu Adama Jali lan ngay wax waa Lul Sessène man day faatu Adama Jali maa ngi leen di jox rendez-vous ca dëkk ba ñuy wax Lul Sessène jouri korité bi bu ñu lekkee ganaar yi ba pare rek fa lañ koy reesale ji kontaan naa ci yéen de man day faatu Adama Jali maa leen di jox rendez-vous foofu